wa yanhawna عن المعروف ويقبضون ايديهم ويقبضون ايديهم واي لنج غوبي موي واي لنج غوبي موي نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم يالنا نتي يال موسى يالنا نتي يال موسى والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤتون يؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله لولا لا نيو تي غوبي لولا نك موي ني لولا نك موي ني سين كاو seen kaw. mooy seen biir. mooy seen biir. ni ñuy sell ci kaw. ni ñuy sell ci kaw. ni la ñuy sell ci xol. noonu la ñuy sell ci xol. te kat ku ñëw fa yàlla. te kat ku ñëw fa yàlla. indil ko lenn lu dul xol bu sell. indil ko lenn lu dul xol bu sell. dala koy delloo. dala koy delloo. kon nag sëriñ bi. kon nag sëriñ bi. noo ngi yeesal kóllëre gi. noo ngi yeesal kóllëre gi. di bokk ak yéen tiis bi. di bokk ak yéen tiis bi. ki nu ñàkk. ki nu ñàkk. di sunu mag. di sunu mag. ku baax a baax la. ku baax a baax la. ku am xorom la. ku am xorom la. ku ku ku yaatub xol la. ku yaatub xol la. xol ba it da caa def lépp. te xol ba da caa def lépp. loolu nag. loolu nag. du ko ñuy fàtte. du ko ñuy fàtte. kon nag foofee mu nekk. kon nag foofee mu nekk. yàlla na ko fa yéenee xolam jiitu. yàlla na ko fa yéenee xolam jiitu. jëfi ay cëramit fekkat ko. jëfi ay cëramit fekkat ko fa. yërmande yàlla. ci yërmande yàlla. ak ndimbalam. ak ndimbalam. lambuwaat ca kaw. lambuwaat ca kaw. dikk gii nag. mais dikk gii nag. dañu ko def. dañu koo def. duggoon nañ ci délégation bi jóge woon Touba. duggoon nañ ci délégation bi jóge woon Touba. ka كمجتمع ولكن المجتمع يتألف من الأفراد ولكن المجتمع يتألف من الأفراد كفرد من المجتمع كن كفرد من المجتمع في لن في لن ديكوات في تورو سما كليفة تورو سما كليفة سرين شيخ سرين صالح سرين شيخ مسرين صالح ما عندك سرين مرتضى سمرك ما عندك سرين مرتضى سمرك أك سرين عبد القادر دومي سرين شيخ لا أك سرين عبد القادر دومي سرين شيخ لا سرين باكي عبد الرحمن أك سرين باكي عبد الرحمن موم دارو Mannaan gëcca Touba. moom Daarul naan gëcca Touba. moo ko yore. moo ko yore. ñooñu ñoo àndandoog ñun. ñooñu ñoo àndandoog ñun. sëriñ bi. sëriñ bi. yéen sama bokk yi. yéen sama bokk yi. bàyyi ngeen ma xel lool. bàyyi ngeen ma xel lool. maa ngi seere ci yàlla ni. waaye maa ngi seere ci yàlla ni. bàyyi naa leen xel. bàyyi naa leen xel. du am benn bis. du am benn bis. boo xam ne. boo xam ni. da ngeen di dugg ci sama biir xalaat. du ngeen di dugg ci sama biir xalaat. loolu nag yàlla mi ko def. loolu nag yàlla mi ko def. moo xam li mu ci jublu. moo xam li mu ci jublu. kon nag toolub lislaam bi nga xam ni. kon nag toolub lislaam bi nga xam ni. ku ci ne da caa am waar di ko ci ne da caa am waar di ko bay. yàlla na nu yàlla dimbali. yàlla na nu yàlla dimbali. ba kenn ku ci nekk. ba kenn ku ci ne. fa mu ne. fa mu ne. di bay ca na mu waree. di bay ca na mu waree. ndax ki nekk ci suuf su dëgër. ndax ki nekk ci suuf su dëgër. ay jumtukaayam. ay jumtukaayam. bokk ak kay bay suuf su nooy. du mën a bokk ak kay bay ci suuf su nooy. bokk ak kay bay ci gàncax gi sax ci biir ndox. du bokk ak kay bay ci gàncax gi sax ci biir ndox. benn tool bee. waaye benn tool bee. yàlla na nu yàlla dimbali. yàlla na nu yàlla dimbali. nu bàyyee ko na mu ware nu bàyyee na mu waree. sàmme ko na mu waree. na mu waree. ba ba àgg fa mu war a àgg. ba àgg fa mu war a àgg. dañoo wax ne àgg lu jafe la. dañoo wax ne àgg lu jafe la. ndax bu ñuy bay dugub. ndax bu ñuy bay dugub. dañoo bëgg mu dugg ci biiru nit. dañoo bëgg mu dugg ci biiru nit. waaye buñ koy bojj. waaye buñ koy bojj. fepp ya fa des àgguñu. fepp ya fa des àgguñu. bu ñu demee ba di ko wal. bu ñu demee ba di ko sunguf sa tuuru àggul. sunguf sa tuuru àggul. bu ñu koy mooñ. bu ñu koy mooñ. la tuuru fi suuf àggul. la tuuru fi suuf àggul. bu ñu ko teyee ba di ko siim. bu ñu ko teyee ba di ko siim. lañ loola àggul. loola àggul. bu ñu ko lekkee ba ci gimiñ. bu ñu ko lekkee ba ci gimiñ. lañ galax ndiku mu tuuru àggul. la ñu galax ndiku mu tuuru àggul. àggulu la kon àggulu jafe la. <laughs> na nu yàlla dimbali